négligence par rapport au Sénégal waaw parce que man je me disais que ni gouvernement bi autorité yi nga xamante ñoo jël en charge loolu waroon nañ ci préparer bu c'est-à-dire euh, comme kaaw paludisme bu ñu saison des pluies bi ni ñuy touché famille ay moustiquaires imprégnés de leen ko jox ñuy je pensais que ni gouvernement waroon na teel a jël matukaay bi jox nit ñi ay masques wala mu mettre à la disposition des mairies ay masques pour nit ñi dem ku comme ça ñu mën a prévenir euh, maladie bi mais aussi tamit waroon nañ préparer ne mën na mën na dugg fii parce que depuis biñ ñu ne dugg na si kon na Afrique ba Nigeria am ko rek ak Algérie Sénégal waroon na pare euh, éventuel éventuellement ñu pare ko quoi mais ni ma gisee affaire yi ak ñiy voyager di ñëw naan loolu la ñu fekk aéroport disposition yi teg foofu loolu je pense que ni arrêté wul épidémie bi mais comme ni ma la waxoon sànq rek nañ ñaan yàlla daal mu yam fii te nit ñi tamit ñu jéem a jël seen matukaay maanaam ñu jéem di raxas seen loxo yi bu baax ak euh, ak saabu ak haute de javel surtout di jéem a mettre contact yi nuyoo yi ak même si lieu public yi wala si bus yi aussi ñuy def très attention bu baax quoi transport en commun surtout surtout ça parce que voilà dañuy gis ni bon ba peuple bi bon société bi ñi ci bëri moom la ñuy jël amuñu oto donc il euh, gouvernement bi tamit communication surtout ça la communication modeste, parce que nous de dañ fogg ni maladie bi bu ñëwé rek ñëppay dé wala ñëpp lay ñëpp lay lal ta amna ci yo xamanteni Nous mayto amana mucc koy wax d'accord war def préparation pour niñ koy mais nañu bool nañu xalaataale it ne ña nga xam ne ñi foofu la sosoo la ñuy dund bokkuñu ak ñun dund ndax ñoom yàpp bu leen neex la ñuy lekk ñu benn yàpp ñun nag suñ dund daa am fu mu yem loola nag bu fekkee ne ñoom dañ koy dund ba loolu sosu ci seen yaram yi ba tas ci seen biir la muy rey ci ñoom par bu ñëwoon fii mënu lu ñu dara ah amin xam nga feebar feebar boo xam ne la monde bi yëpp instant yi ñu ngi koy mi ngi mi ngi mi ngi dugg fépp quoi so Euh, bettuma d'un côté mu yow Sénégal euh, parce que Sénégal dëkk dëkk la boo xam ne nit ñi dañuy dugg di génn soo xam nga ñu ñaan yàlla quoi. bon en fait moi quoi parce que maa ngi suivre actualité et vu que ay dëkk yu mag dal na leen yàgg xaar moi quoi je m'attendais à que notre pays soit victime quoi. ah bon vu que la circulation est en les avions ils survolaient et tout, les gens venaient un peu de partout. Moi, je tout le monde quoi. En fait, au Sénégal, il faut beaucoup touristes et tout. tout le monde quoi. Ça fait un peu de aussi. Non, non, non, non, je pense pas ça. Au contraire, ce qui est yakal. Parce que genre épidémie, bon, mais nous, le gouvernement bi, impuissant par rapport à ce phénomène là man je pense que les nit ñi dañuy am dañuy am ben rancune envers le le le gouvernement donc moom actuellement nii li mu war a gën a def mooy comme li ma wax léegi communiquer ak peuple bi euh, ñu joxe comme ni ñu def ay numéro vert mais aussi wax lan mooy mën a tax ñu éviter feebar bi virus bi daal. Lolo, dina ci am solo mais pas ay question politique troisième mandat wala quoi que ce soit quoi parce que lolo, je pense que ni sax du débat parce que eggaguñ mais actuellement li nekk fii daal mooy virus bi ñu jéem a xool nan lañ koy saafarawee au moins mu bañ a laalaat keneen wala mu laalaat euh, ñeneen daal moo gën. bon c'est un peu difficile ñu blâmer gouvernement bi parce que boo xoolee am ay dëkk yu am comme ay Amérique ay France euh, virus bi dugg na fa so gouvernement bi am lu mën mais tamit am na ay limitation quoi parce que comme nous nga ko waxee Sénégal dëkk la bo xamné ne nit ñi dañuy dugg di génn so xam nga euh, pour gouvernement bi contrôler képp kuy dugg di génn si dëkk bi day metti te feebar boo xam ne symptômes yi du génn sur le champ mun na toog 40 jours balaa muy génn so day xaw a jafe gouvernement bi mun a contrôler loolu quoi. xanaa set rek waaw set ci sa biir set ci biti ak. yi même joxe loxo yi ñuy wax nii sax mënul ñàkk ndax boo joxewul sa loxo yaa ngi ne ci jàkk yi di rijonte nit ñi lii may def nii yow rek danse la ndax maa ngi nokki di la sobal ngay nokki di ma sobal xamoo mi ngi ci man xamoo mi ngi ci yow te loolu moo gën a nekk ci biir ci biir jàkk yi yooyu mais buñ jógee affaire loxo yi ñuy joxante nii ñu bëgg koo garaawal garaawal ba nit di daw koo xam ne waru koo daw xam nga yooyu itam bokkul ci civilisation. waaw xanaa maytu rek. fagaru bon xama set préparer ko rek lol dong quoi di ñaan tamit yalla musal ñu ci ah xanaa ñu gën a suñu bop rek foofa la bëgg ñu jëm fa ndax gis nga li bo xolé la ko lal deug deug deug deug deug boko waxé nak man nañ la ki mais ci ñay xeexi diine man na faa sosoo ndax ab diine boo ci dugalee loo xam ne lay nit ñi rek diffusement mi ngi diffusion mi ngi commencé ci ngay dend ak seen dëkkandoo ngeen war a wala bu yox nga a a ci jàkka ji. ne de Wuhan mais bu incha allah mais bis bu OMS ne pour ñu jël matuwaay toll noonu ko

boo ci nee da ngay dend ak nit ñi sàppe yi day fees del ngay nokki di sofal kii kii di nokki di sofal wala muy wax eeram di dugg sa sa bakkan xam nga loolu moo gën a danseré jox loxo waaw léegi daal li ci gën a kii daal mooy ci gàttal nañ góorgóorlu ak ñaan yàlla yàlla mi ko fi wàcce mu mu mu seddal ko rek mu jeex waaw loolu daal la ñaan nañ ñaan yàlla ci réew mi yàlla jàmm ci mu fi def yàlla yokk ko te def ko ci réew mi ak réew yi ko wër yëpp ci àdduna bi yëpp ak nguur gi ah, man man daal comme ni mu ko waxee xam nga feebar boo xam ne dem na ba dugg ay Amérique ay France nga xam ne loolu ay puissance mondiale lañ ñoom depuis le début ñu ngi jël seeni i mesures te terewul feebar bi dugg so bon gouvernement bi bon dégg naa am na am na ay mesures yu mu jël quoi mais mais en tant que feebar bi dugg na si dëkk bi est-ce que gouvernement dafa faible je pense pas que loolu kii na quoi. juste na juste na pour blâmer ko gouvernement bi lépp.